وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاي أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخسى ولا أرجو سوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi seetaan seen télévision MK TV di télévision bu mag bi nekk ci jumaay Touba ñu ngi leen di nuyu uh, di leen balu àq dellusiwaat ak yéen ci seen numéro 2 ci émission bii ñu tuddee nemmeeku émission nemmeeku di émission boo xam ne MK moo leen ko jagleel weer wu jot ngir di ci nemmeeku ay barab yoo xam ne dafa am taarix ci yoonu murit ngir ñu gën koo mën a bàyyi xel gën a mën a xam itam jeexit ya fa nekk tey nag suñu rubrique nemmeeku bii ñu amale ko fii ci pàkk bu sell bi ñu nekk ñu koy wax daarul alimul xabiir daarul alimul xabiir ñu gën koo xam ci ndaam ku tudd ndaam nag danga tudd daara ju mag ji nga xam ne Serigne Touba moo ko fi defoon te daaloon fi jàmbaaram ju mag ja boroom xam-xam ba jaamkatu yàlla ba jàngalekatu alxuraan bu mag ba di Serigne Ndaam Abdourahman Lo daar jooju moom lañ bëgg a xam tey ndaam lan mooy cosaanu ndaam ak yan jeexital moo fi nekk ak yan lañ mën a jariñoo ci barab bu sell bii nga xam ne mooy ndaam ak waxtaane ki nga xamante ni moom la fi Serigne Touba daaloon muy seriñ Ndaam Abdourahmane Lo loolu moo waral équipe bu MKTV déplacé wu tey ñëw ngir ànd ak yéen ci seen émission nemmeeku ngir nemmiku barab bu sell bii di ndaam ñu war cee ànd ak kenn ci njabootu Serigne Ndaam Abdourahmane ngir ñu waxtaanee barab bu sell bii ak jàmbaar ju mag ji nga xam ne moom la fi sëriñ Touba Cheikhul Khadim daaloon waaye nag amal ab jataay ak moom ngir waxtaanee nemmeeku barab bii di daaru alimul xabir eh, ak sëriñ Daam Abdourahman Lo warirwaani wa mahmadati bilqalbi wal jismi wal aqlaami lillahi kulli law jalla fi sirrin wa fi alanin ولست أسأل خير النبي الله رباني النبي والوهاب وأذكره ما دمت حيا بقول الحمد لله ok mbokk yi kon ni ñu leen ko waxee ci ubbite bi sen émission nemmeeku bi leen MK TV di jagleel weer wu ne tey ci suñu ñaareelu numéro bi ñu jagleel ko barab bu tedd bi di Daarul Alimul Xabiir Ndaam di barab bi nga xam ne ci la Serigne Touba Cheikhul Khadim daaloon jàmbaram ju mag ja Serigne Daam Abdourahman Lo mu féete woon fi liggéey bu mag bi nga xam ne moo gënoon a ñor Serigne bi muy jàngale alquranul karim barab bii di ndaam nag euh, ñu ñëw fi tey fekk si fi euh, Serigne Cheikh Lo Al Khadim mi nga xam ne moom la ñu war a siqal tey jataay bi euh, ñu jox ko rek mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci waxtaan wi Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bu baax mbokk yi nga xamee ne ñoo fi dikk tey muy waa MK TV Moukhaddamatoul Khidma TV di leen nuyu bu baax te di leen dalal seen kër fii nga xam ne mooy ndaam daara xam xabir di naan yàlla li nga xam tànk yi nga xam ne jóg nañ ko fi di ko ñëw muy tànk nemmeeku tànk yooyu yàlla nañ ko si yàlla nañ ko suñu borom fay di nuyuwaat bu baax mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci seen bii di MK TV. xam na fi ñuy tàmbalee rek mooy daarul alim al xabir di tur wu rëy tur wi kan moo ko tànn ak barab bii ñu ko tudde kan moo ko sos ak ci wan waxtu la ko sanc waaw barab bii ñu nekk mi ngi tudd daarul alim al xabir daarul alim al xabir nag suñ ko waxee dafa nekk tur woo xam wala dëkk boo xam ne dafa ame ñaari turu yàlla mu mel ne neewaa na gis dëkk yu mel ne dëkk murid yi muy baaxoo di am ñaari tur yàlla mel ne kon ñaari tur yàlla yi mu am day mel ne xaw na am ak jagoo ci moom ñaari tur yooyu yëpp nag boo ko delawaatee dafay méngoog li taxoon ñu sos bërëb bi muy jàngale ak yare ndax al alim daa bokk ci turu suñ borom yi nga xamee ne dafay tegt ne yàlla mi nga xam ne dafa xam alxabir nag yàlla mi nga xam ne dafa dañ kumpa ci lépp muy lépp xam teg na ko mu mel ne kon bërëb bi bokk day ñaari tur yooyu rek war naa mën a tax suñu xamutoon lu ñu fi def ci ñaari tur rek day mel ne baraatul istihlaal la ci ñu xam lan moo fi war a nekk dëkk bi nag li gën a siiw ci gëstu yi nga xam ne ñu ngi koy def te ba léegi ni ñu ngi continué di ko def dañuy wax ne sañ bi jamono yi mu sancee Touba ba def fa lu mat ñetti at wala ñaari at wala ñetti at daal am na ñu wax ne ñu bëree bëri ci lañ wax ne ci lañ sanc bërëb bi kon loolu du soreek xam naa doo 1892 jàpp 1893 loolu nag li koy li koy dëggal ay in la yoo xam ne buñ ko delluwaatee ci mbind suñu musaaka wala mbind lenn ci nett li mag ñi dañuy nett li waxtu bi ñuy jàng ñi ngi woon ndaam ku mel ne suñu musaaka boo demee ci Maola Fallou mam suñu Masamba da nga fa dégg muy wax ne ndaam la jàng alxuraan fa la mokkalee wala sax ndaam la bindee kaamil te ma samba siiw na lool ci histoire yoonu murit ñu ne ci fukki at benn ci la bindee kaamil kon ay xam ne kon ndaam gi la doon waaye texte boo xam ne nag wala luy tegtale ne kat gis nañ ko moo xam mbind la loolu ba léegi accès ko bàyyi nag xaraa yi nga xamee ne ay borom xam-xam ñoo ko wax dafay tegtale kon ñu ngi ko sanc 1892 93 ki ko sanc mooy Serigne Touba wax nañu Serigne Touba boole bi mu nekk Touba daan sanc daaru yooyu noonu lu mel daaru Qudus daaru Rahman ak daaru Minan daa bokk ci daaru yooyu mooy daaru Ali ibn Xabir nekkoon fi ak Serigne Daam bi mu koy doog a sanc wax nañu ci diggante bu gàtt nag ci la ko fi bàyyiwaatee damaat yeggalawaat ca sanc ca Touba ga nga xam ne jekk ko sant kon bu ñu waxee ko ko sanc mais sax na Serigne Touba la mi ngi ko sanc 1892 mu ne ànd kook nag ci sanc bi taalibe boobu nga xam ne moom la ñuy wax sëriñ Ndaam Abdourahman Lo mhm. jërëjëf sëñ Cheikh kon mhm. loolu leer na mhm. leeral nga ñu tur yi fi mu bàyyi ko muy ñaari tur yi suñu borom yoo xam ne buñ ko tuddee tudd barab bi dañu xam ne tur yu méngoog barab bi la leeral nga ñu itam ki ko sanc ak li taxoon mu sanc ko ci loolu sax lañ bëgg a ñëw sëñ bi yaa ngi junj ne bi mu ko sancee daf koo ànd ak talibeem bu mag ba mhm. jaamukatu yàlla ba boroom xam-xam ba mhm. muy sëriñ ndaam abdourahman loo mhm. mu euh, daal ko fi joxoon ko liggéey bu mag boobu muy njàngaleem alquranul karim ñu bëggoon a xam euh, diir bi fi sëñ sëñ sëñ daam abdourahman loo nekk ban diir la war a doon nu muy war a toll waaw bu fekkee ne jàpp nañu ne 1892 93 la ko sanc kon day mel ne sëñ daam def na fi juróom fukki at yoo xam ne ni mi fi nekk di liggéeyal ndax moom mi ngi wàcc le wen su ma juumul le le trente août mille huit cent mille neuf cent quarante trois trente août mille neuf cent tombeek le vingt neuf ci weeru Chaban mille trois cent soixante trois kon day mel ne sax na fi wax waxale suñu moom lu tolloog cinquante ans yoo xam ne nii ci liggéeyal alxuraan la ko nekk loolu li ko gën a firnde rek mooy Cheikh Mamadou Bachir bi muy bind Minanul Baqadim am na fu muy wax naan liggéey bi nga xam ne moom la ko suñ Tuubaa sasoon jiitu na suñu gane àdduna loolu la ko waxee moom ba jamono ji may ba jamono ji may bindee téere bii muy jan sachin loolu mooy mille trois cent cinquante cinquante daa ne ba jamono mille trois cent cinquante trois mooy jan sachin mu ne ba fii may wax ni mi ngi nekk ci liggéey boobu noonu loolu boobu kon day mel ne ci jamono boobu amoon na ñeent fukk ak benn ñeent fukk liggéey bi waaye bi ñeent fukk ak liggéey bi loolu mooy mille mille trois cent cinquante trois mooy tolloog mille huit cent trente day mel ne day firndeel ne kon liggéey bi ko suñ ci waasal lu yàgg la mi ngi tàmbalee yàgg na sax ndax buñ topp buñ jëlaat ci histoire yaakaar nañ ci ñëw dañuy xam ne bàyyi tàmbali wut ndaam waaye dafa njëkkee Touba Mbacke Kajoor ak fu bëree bëri ba ni mu ñëwee ndaam waaye bu ndaam gi moom li nga xam def nañ ko fi nga xam diir boo xam ne moom xam nañ ko juróom fukki la juróom fukki at yoo xam tamit ñi xam dundug suñ ndaam ñëpp wax nañ ne bi mu fi xasee ba dugg génnaatu ko benn yoon waaw mooy demaatu ci mbokkam demaatu tamit sañcewaat ay dëkk bu fi génnee rek mooy ndigal la loo xam lu ko suñ ci wax wala wala lu mënta ñàkk ci ay jëflante yoo xam daan na ko def diggante mag ñi kon day mel ne ba nu mu fiy jugaatee gisuñu beneen dëkk bu mu sancaat wala leneen lu mu mat lu bokkul ak daara alimi sëriñ bi hmm. daana fi wala daana nekk ak moom waaw bi mu koy dëkk sanc dégg nañ ci sëñ Moustapha Lo sëñ Moustapha Abdourahman nekkoon borom xam-xam nekkoon gasu ko tamit boo xam yàgg gëstu ci yoon wi dégg nañ mu wax ne moom sëñ bi bi mu koy dëkk sanc dëkk na fee moom lu mat ay weer am na ñu wax at waaye ala ala kulli xaal moom mooy sëñ bi dëkk na fee moom wax nañ ne sax dëkk gi mu fi dëkkoon ak moom tax na ba jàkk jee nga xamee ne tey moom la ñu tabax mu jumaa ji wax nañu moo ko rëddalu boppam kon li ñuy li ñu dëggal suñu Tuubaa dëkk na fi dëkk na fi mooy jàkk jee nga xamee wax nañu moo ko rëddalu boppam loolu nag ñuy wax ne mi ngi nekk 1853 1893 1892 kon suñu Tuubaa nekkoon na fi waaye nag nekk googu noonu nekkul lu yàgg kon nag xam ne ne ginnaaw bi la demaat Tuubaa defaat fa ñaareel ñetteel doo ko yóbbu ci géej gi ñu doo ko yóbbu ci géej léegi nag ñu bëggoon a ñëw nag ci hmm? jeexital yi nga xam ne moo nekk ci barab bu sell bi hmm. ndax loolu moo gën sabab suñu ñëw fii ci barab bi nemmeeku hmm. jeexital ndax daa dafa am ay jeexital tudd nañ léegi daaree alxuraan ji nga xamante ni sëriñ ndaam yoroon na ko fi waaye jàpp naa ne am na yeneen jeexital sax yu bokkut ak yooyu yoo xam ne yooñu ci mën a tuddal waaw ndaam da xam ne continuité la ci façon tërbiye bi suñ tubaa bëggoon ay murit ay murit ay muritam yaroo ko maanaam suñ waa bi mu doog a sos yoonu murit Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol Daaru Salaam ba Touba lenn nekkoon lenn rek moo nekkoon yitteem mooy yare ak jàngale loolu moo nekkoon yitteem ku xam ne ne bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax na ko rabbi ashaabaka bil himma rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wala turabbihim bi darsi kon yar yar boobu nga xam nag moom la suñ doon def mag ñi mag ñi mag ñi ko njëkk machine ñu bëri bëri sëñ Mbàkke Buso sëñ Adama Gaye sëñ Amadu Mahal Lo borom Daaru Moxti ñoom ñëpp bi leen sëñ Tubaa yaree kenn ku ne daa mu la féetale bu dee nag sëñ bi mu ko yaree ba def li mu def ci ba pare da ko indi ndaam nag ngir mu yare ak di jàngale nga xam ne dafa boole yare jàngale kon bokk na ci jagleel dëkk bi mooy dëkk la boo xam ne nii képp koo xam ne nii bëggoon na ak ak gaaw wala ak defaram gaaw sëñ ko indi ndaam loolu moo tax ba ñu toppee ci histoire ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon jàng te doon fi yaroo dañuy gis ne saa yuñ demee ci suñ tubaa ci njaareem wala saa pare suñ suñ daam pare ci ci ñoom ba yóbbu leen ci suñ tubaa dañuy gis ne dañuy bokk ñu di gën a jege ci suñ tubaa loolu li ko waral mooy lan yar bi nga xamee ne moom la suñ tubaa bëggoon ci ab taalibe ko da da ko bàyyi woon suñ daam mu koy def fii nii boobu nag tàmbaliwu ko ci taalibe ay rakki boppam loolu wax nañ ko ku mel ne sëñ Masamba bokk na ak sëñ Omar Gelaw Ngal nga xam ne mook sëñ bi ay dooy bàyyi lañ yemut ci ay rakkam waaye ñëw na sax ba ci ay doomam Cheikh Moustapha Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Cheikh Mouhamad Amin suñ suñ Bachir jaar na fi tuuti ak suñu Abdou Waram Dar bi suñ Mutla loolu ay doom la ba ci waa këram tamit da ngay xam ne ba tey yar boobu tamit sëñ bi sàkk na ko ci ay waa këram waa këram mooy ñi nga xam ne leen dëkkaale woon loolu buñ ci tuddee kay ku mel ne soxna Fassile Libaas mi ngi fi woon soxna Fat Tuuti Diop mi ngi fi woon soxna Xari Penda Fall mi ngi fi woon ak ak soxna Aminta Jobbe mi ngi fi woon ak lenn ci mbaa barsaq yëpp wala sax ñu bëree bëri soxna soxna Aminta Busa mi ngi fi woon ndax am na ci doom yoo xam ne fi la gën a àdduna kon da ngay xam ne kon yar boobu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci ci ci muritam ko tàmbalee ci ay doomam waaye ci ay rakam ci ay doomam ak ñi mu dëkkaaleel taalibi nag doog a ñëw mooy ñi nga ne ay taalibi lañ loolu mën na si ne ñu bëree bëri ci doomi taalibi yi maam Cheikh Sarr nekkoon na fi sëñ Muudu Maamun doomam la di taalibeem mu maam nekkoon na fi sëñ Alaay sëñ Tàkko ak lu bëree bëri bëri ci njabootuk sëñ Mor Jaara gi yoo xam ne sëñ Mor Jaara moom bu weesoo ma doom yi mag la njàng kon da ngay xam ne kon fii ak jagleelam lenn ko taxoon mooy jàngale ak defe rek mm-hmm. loolu kese nag suñ tubaa ki ko daaloon mooy suñ daam Abdourahmane mi nga xamee ci ñi suñ tubaa njëkk a defar ak ñi mu ko àndaloon ci mag ñi bëri ci jamono boobu noonu kon day mel ne moom bi ko suñ tubaa pare rek daane ko li def ci yow nag fexal defal ma ko ci ci njaboot Euh, ñaan gi sëriñ bi ñaanoon ci matlabul a mhm. wajaalahu da'ban maskana ta'allumi mhm. sëñ daam daf ko matérialiser mhm. sëñ Tuubaa da ko joxoon digal mu matérialiser ko ñu ñëpp teg ci seen bët mu tàmbale ko gis nga ko ci ay rakki boppam ak boppam ak ci waa ba ci magi magi murid nga xamante ni seen i taw yëpp daanaka seen doom yi mag yëpp sëriñ daam moo moo leen moo leen moo leen moo leen jàngal mhm. moo leen yar mhm. yóbbootoon ci jàngale waaye dafa boole woon jàngale mhm. ak di leen yar tarbiye leen léegi nag daara jooju tey bu ñu doon wax daara jooju ñi nga xamante ni tey ñu génn ci kaba i murid yi ne nga xam ne banki murid yu mag yi mën nañu wax cadre murid yi sax yëpp fii moo nekkoon université bi nga xamante ni moo leen produire daara jooju tey euh, ban ban impact la war a la war na am ci yoonu murid waaw damay wax ne wala damay faral di wax ne euh, boo xoolee yoonu murid ay génération la am na première catégorie am na deuxième catégorie am na troisième catégorie boo xoolee deuxième catégorie yëpp mënees ne ci loxoy sëñ daam ci lañ jàngee deuxième catégorie boo ko tàmmalee ci sëñ Moudou Moussa sëñ Moudou Mamoun nga dem ko nga ne ci kër mag tamit ñu bëree seen njaboot fii lañ nekkoon léeg-léeg sax da ngay dem ba jékki-jékki doo commencé xam ñoo la na daam loolu lépp ba tey semaine bii rek am nañu am ci da xam loolu kon ci mën ci li nga ci njàngaleem suñ jaam amoon na impact bu mag ci yoonu murid impact bi mooy leen bi fi suñ Tuubaa jugee deuxième génération bi nga xam ne gis na leen ne ñoo taxaw yoon ci jamono boobu mm-hmm. parce que deuxième génération bi mooy ay mag ay ndaw lañ ñi taxaw ñoo di suñ Modou Sow suñ Fallu suñ Bachirou suñ Lamine suñ suñ Baara ñoom ñëpp ci njàngaleem suñ daam wala suñ daam lañ yaroo fii lañ ne ab réussir la ci moom mm-hmm. réussir bi mooy defar na ñoo ne ginnaaw bi fi suñ Tuubaa jugee ñoo taxaw yoon loolu dèjà day bokk ci ay nataayam yi nga xam ne moom def na ko kon ak njeexit li na bu dee daara ji nag yàlla dogal na mboolem ñi fi nekkoon tamit te yorut ay daara da ngay xam ne kon tamit ci meññeenti daara lañ bokk képp ku fi jóge jànge fi ba jóge fi am ay daara na la wóor na sa daara jooju ñooñu day bokk ci meññeenti daara ji. farxa la woon farxa la woon waaw ji loolu mën see gis ay daara yu mag lu mel ne daara yi euh, tey tawfeex bi nga xam moo nekk Jurbel daara ju mag la mais tawfeex ka fa nekk mooy sëñ Badia ki ko jàngal sëñ daama ko jàngal mooy sëñ Mor Penduloo mi ko jàngal moog sëñ Maxtaar Binduloo ñoo bokk ndey ak Mor Penduloo fii ko sëñ Tuubaa joxoon da ngay gis ne kon bëri daara yu mag ci ci réew mi boo toppee ca la fii lay ko loolu bokk na ci meññeen yi nga xam ne mooy sëñ dafa loo ko alxuraan mhm. Mhm. bu dee dëkk bi nag la moom tamit mbooleem kër yi nga xamee ne am na ko fi ci doomam kër ay doom fekk daara loolu tamit day mel ne continuer ba tey ci loo xam ne njaboot fi demoon da fekk daara jóg nga xam ne moom la sëñ daam bàyyi ba léegi mi ngi kon ne di dox ci ci kër gi ab sëtam tamit moo ko yor loolu sax laa bëggoon laaj hmm. jooju nga xam ne tey hmm. moo mën nañ wax ne mooy université yoonu murit hmm. tey daara jooju fu mu toll mi ngi dox ak ban ban ban ban kii la am ban capacité la am waaw daara ji nag wax dëgg yàlla ni moo doon doxee ndax daaree suñ daam dañoo war a xam ne du daaree suñ daam waaye daaree suñ tubaa la daaree suñ tubaa la mooy daara ji suñ tubaa njëkk a sos sos kon nag daara jooju daa mel ne murit yëpp ko waroon a bokk waaw mu mel na boo xoolee nag euh, ci jamono yi ñu mujj nekk nii daara ji na mu waree doxee dëgg dëgg dëgg loolu doxee na ko wax dëgg yàlla loolu nag euh, xam naa ne ay kilifa yi ñu ngi ay kilifa fi dañuy dégg sama wax dañuy xam ne daal képp koo xam ne nii suñ suñ daama jàngaloon sa baay wala mu jàngaloon sa maam am na àllarba ju la war joo xam ne nii mi ngi fii ci ka suñ daama. boo xam ne bëggoon laaj. Hmm. koo xamante ni. Hmm. njaboot gi nga xamante ni ñoo soqi koo ci. daara ji wala seen maam mhm. ñoo sax koo ci daara ji mhm. tey waroon nañ am beneen taxawaay mhm. boo xam ne war nañ ko taxawaat ci daara ji ndax daara ji patrimoine yoonu murid waaw moom euh, yaakaar naa ne su ma jumul at yii ci ginnaaw rek tegoon na fi benn xeer boo xam ne ñi ngi ci mooy wa njaboot gi seen jëm bopp ñoom xaaruñu kenn ñoom tàmbali seen bopp li ñuy li ñuy tàmbali nag ku ci fekk si nga xamee ne moom alhamdulilahi rabbil alamin aw yiw la woo xam ne képp koo xam def nga ko na la wóor na ko suñ daam waaye suñ tubaa ko defal liñ ci mën mooy daaree suñ tubaa yoo xam ne ni mooy daar ji njëkk ci daar yi Sëriñ Tuubaa sos fii nii kon nag ñun murid war nañoo amu sago ba fekk ba fekkee ne ñun jamono surtout jamono ci nekk ni nga xam ne dañuy xumtoo bokk ci li ñuy sàmm mooy patrimoine sëñ bi patrimoine sëñ bi nag dafa matériel ak immatériel matériel bi nag mooy lu mel ni yii nii mm-hmm. kon loolu war naa fexe ba ñun li ñu war a sàmm ñu war ko sàmm ko jéem ko jëmal kanam loolu moom ñu ngi ci woo mboolem murid yëpp ñu xam ne daal am na benn patrimoine sëñ bi boo xam ne mi ngi fi te bokk na ci patrimoine yi gënoon sëñ bi te mooy daaree ndaam mm-hmm. sëñ daam de moom taw fexe bi ko yàlla defal ci mhm. sëriñ bi mooy mhm. li sëriñ bi gënoon a yittewoo la ko dénkoon mhm. te ba mu ko ko dénkee geesuwaatut leneen geesuwaatu leneen wax nga ci njëlbeen gi amaatut feneen yitte amaatut ci leneen soxla ba ba ni mu fi jógee lu lu jóge juróom fukki at ñeent fukki at ak nangam yoo xam ne mi ngi ci daara ji génnaatu ko ba loolu sax xëy na sabab na ba euh, xëy na ñu baree bari umpale guñ umpale barab bi mm. loolu loolu loolu ci la loolu ci la bokk mm. mm. waaye sëñ bi ñu ñëw ci jeexit yi fi nekk mel na ne gis nañ fi ay barab yoo xam ne lu mel ne fi mu joowaat gi fi mu daan nekk ak fi mu daan jàngale njabootu sëriñ beeg ak barab yooyu boo ñu ko doon limal lan ak lan ak lan lañ mën a fekk ci biir kër gi xam nga loolu sax day bokk ci jagleel ndaam ndaam dégg naa ci net lu suñu xëy di jaxate ndax may na suñu xëy di jaxate gëstukat la di doom si ñoom sot moo wax ne sëñ bi da ko waxoon bi muy jaar ci yéen bi fi jóge di dem ci daa wax ne daa am yuko ko suñ borom mayoon yaakaar naa fukk fukk ak ñaar la wax moo wax ne juróom-ñeent yi dama ko denc ndaam gi fii laa ko kon sama pekk la daane ku ma soxlawut du fi ñëw lool day wane ne kon ba daane ku nekk Touba ba am ñeent fukkat juróom fukkat du mas a jaar ndaam lool bëri na fi léeg nga gis koo xam daan la mosuma jaar ndaam la tax jaar foo nag day mel ne moom pekkub suñ Touba la mm-hmm. pekk nag du caag ne wala mm-hmm. ab pekk waaw ñëpp ñëpp cee mën a mën a mm-hmm. xam ne kon ndaam bokk na ci bi nga xam ne bëri yu ëpp gën a làqu gën a làqu bu fekkee jeexit yi nga fi nekk nag barina fi am na fi jeexit yoo xam ne bokk na ci mooy néeg bii nga xam ne moo nekk gi ginnaaw nga xam ne wax nañ li ëpp ci njabootu sëñ bi gën a àdduna fii ci ndam te loolu buñ ko doon kaw ci néeg a àdduna wax nañ loolu soxal nañ loolu bu dee njawaan gi wax nañ ne jamono yi mu fi nekk bu daan jàngalee bëccëg gi fii daan yaru njawaan gi bu dee guddi gi mu defe ko ci njawaan gee loolu bokk na ci njawaan gi daqaar gi bokk na ci daqaar gi nga xam ne fii la daan toog daan jàngale daqaar gi ba mu daanu yàggut moo tax ñu mujj ko daal koy def ni ñu def noonu bokk na ci mooy néeg bi nga xam ne ci la gan ci la ci la génnee àdduna waaye ci biir loolu am na ci beneen néeg boo xam ne ci biir la nekk néegu la néegu Sëñ Tuubaa mooy mooy bi fi Sëñ Tuubaa jaaree di dem Jurbel dafay gi mu fanaan nag ci néeg bi la fanaanu néeg boobu na nekk su mu jumul ci njaboot gi bi fi indee soxna Jóob Mbàkke moo fi dëkk ginnaaw bi soxna mooy ci néeg xam tamit mi ngi fii mooy fi nga xamee ne tey fa la daan dafee ñaari ñaar rakka yooyu yaa mooy naafila alxuraan ji waaw ci ñaar rakka loolu xëy histoire bu siiw la yoo xam ne jëruñ yaakaar bu fekkee ne waxtu bi nekk day mel am na jeexit yu fi nekk am na ci julli yor yor waaye boo demee ba ci suuf da gis ne am na birig yu fa nekk yi nekk ci armée yi ñu defal doomi suñ tuwaay kon da xam ne kon moment bi ci jamono bi muy nekk wala jamono bu yàgg-yàgg la buñ topp nag ci wàllu histoire wax na ñoom mooy fiñ fiñ defar foofu noonu kii kon am na ay jeexital yu bëree bëri yoo xam ngi fi jeexit yoo xam ne ni ñi ko xamoon dëgg-dëgg daana fi ñëw am na ci nett li boo xam ne mutawaatir la mutawaatir la mooy ki ko nett li mooy sëñ Abdoulaye Jaxate nekkoon ci kër sëñ Souhaïbou mujj nekk ci sëñ Saliou yaakaar naa su mujjum nett na ko ñu bëree bëri bëri daa wax ne bis dafa jóge fii di dam di dem di dem di dem euh, Poroxaan booba yaruñ dafa naqare lool sëñ Saliou ci boppam ñëw di tàggu sëñ Saliou sëñ Saliou kat ne leen yoon yu ngeen jëm ne dama leen cee yeewante ndax poroxaan gi métti yooyu daane fii ci Touba am na fi bërëb boo xam ne nii mboolem ñi ngeen sàkku poroxaan yëpp yàlla yàlla def na ko ci bërëb boobu te jege na la muy daa daana am yu gi yaakaar ko fa demaat ci moom boo sàkko ci moom nett daan la ko ndax yaakaar ne su mu jumul wax nañu ma ne saa yu poroxaan jotee dana njëkk siyaare fii bare doo ko adam kon da xam ne kon ñi fi nekkoon di ay mag surtout waa kër suñ tuwaay ñu xamoon lañ suñ fàllu wax nañu nett leen bu fi daan ñëw fa daan summi yi loolu ñun xëy na ñun gone ñoo xamul rek waaye mhm. daa wax ne bu ma saan ñëw fa la lay sumi jàll di dox ak ñëw mhm. daana wax ne fii laa léppee mhm. suñ tubaa suñ fàll na koo ko xam di may bu ne fii laa rek waaw loolu doy na sax ak ko xam suñ fàll daal ak dimension bi ko yàlla joxoon ci wàllu baat nag ci wàllu ak ci wàllu xam-xam kon loolu day ne day na sëkk rek ci ñu moom ñi dëkk wala ñi fi dëkkul sax xam nañ am na baatin bu fi nekk waaw loolu moom yàlla yàlla yàlla def na ko ba tey juñu ko léegi mm-hmm. njabootu sëriñ sëriñ bi ñoo xamante ni euh, bi ñu làqoo fi lañ leen def mm-hmm. waaw euh, am na fi njaboot gu fi nekk mm-hmm. yaakaar naa su ma jumul boo demee ci armel sax da nga fa fekk benn miir boo xam ne nii dañ faa bind doom yi suñ tubaay loolu góor gi ko liggéey man xam naa ko nee na ma soxna Fat Ja moo ko doon liggéey lo 1854 mi ngi dund góor gi mi ngi dund nee soxna Fat ci boppam mi ngi tudd Amdi Kan mi ngi dëkk fii Mariana Amdi Kan naa fa nekk li ko 1954 ne ci la ko soxna Fadja miire loolu moom ko nettali kooku tam tamit dañ la waxaat mhm. waaye ñi fi tëdd tudd ñi fi xam xam nañ fi suñu Abdou Khoudous mhm. suñu Abdou Khoudous moog suñu Salif ñoo bokk mhm. Abdoul Baqi moog suñu Salif ñoo xam nañ fi Abdoul Muhayminu moog suñu Murtala ñoo bokk xam nañ fi tamit sëñ Hamidun xam xam nañ fi tamit soxna maanaam euh, kii Umu Kalsoom xam nañ fi tamit soxna Maskura soxna Tahira xam nañ fi tamit na Roqeya

amoon na tamit maanaam su mu jumul baatin bu nekkoon ci suuf moo tax doomi suñ waay yi nga xam ne ñoo fi tëdd tamit bu bu fi benn nekk toon yi nga gis ni yëpp te doomi suñ tubaay tëdd fi rek day na sëkk ci ne suuf si suuf su barkeel la jërëjëf mhm. sëñ Cheikh mhm, jërëjëf jël nañ ci sa waxtu lu bari mhm. waaye mënuñu woon a ñàkk waxtaanee barab bu sell bii di ndaam suñu rubrique nemmeeku ngir mbokki taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw Touba wala sax ñi dëkk biir Touba te mhm. umpale barab bi mhm. ñu xam ne nag barab bii mooy patrimoine dëgg dëgg dëgg yoonu murit mhm. mooy université bi njëkk ci yoonu murit ndax mooy daari Serigne Touba ji nga xam ne moom la loon boppam kon ñu jox la nga kàddu yi koy tàggoo mbokki téléspectateurs yi waaw xam naa ñu ngi leen nuyuwaat baax yaakaar naa seen bi moom miin nañ ko sëñ jili moom xamante nañu baax ak yow sax yàgg nañu def ay ay ay kii mu nekk chaîne boo xam tamit chaîne bu mat a jàppale la ndax seen boo xam ne ni saraf bi mu am day na ko sëkk ci ne ci biir jumaay Tuubaa ji nekk loolu mooy sarafam sarafam eh, loolu yaakaar naa ñëpp dañ ko ci war a ñee bu ko defee nag comme li ñu xam rek mooy bërëb bii ñu nekk mooy bërëbu ndaam ñi xam ne daal bërëbu Sëñ Tuubaa la waxoon dafa bokk ci bërëbu Sëñ Tuubaa yi tegoon fi ab taalibeem yàlla dogal na tamit taalibeem boobu nekk fi ndigalu Sëñ Tuubaa ba ni mu wéy ju boromam kon nag mboolem yi nga xam ne ñooy nekk ay murit ñu ngi leen bàyyi xel ci bëree bëri yoo xam ne bërëb bi soxla na ko loolu nag boo xamee njaboot gi ñi fi dëkk niñ mel ak nañ nañ nañ ni yàlla bindee da nga xam ne nekk baaxuwoon ci njaboot goo xam ne kuy faral de ma ñaxtu la ni ko yàlla alhamdulilah rabbil alamin waaye am na yu fi war daal yoo xam ne ni ñi ko xam xam nañ ko eh, te ñu ngi leen ci bàyyi xel di leen di leen ci diglu te nga xam ne daal képp koo xam def na fi dara jàpp naa ne sa bopp nga koy defal ndax bërëbu Sëriñ Tuubaa la te képp koo xam ne def na fi dara tamit fii nga koy gisee ci àdduna ji si nekk loolu moom ñi ko ñi ko ñi ko xam te mos ko ñoom xam nañ ci dara kon daal ñu ngi nuyuwaat ñëpp di wax ne waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëñ Cheikh Lo Alxadim ñi nga xamante ni tey moom lañ àndaloon ci suñu rubrique bii di nemmeeku ñu jagle jagleeloon ko nag barab bu sell bii di daarul alimul xabir ndaam dégg ngeen waxtaan wu am solo bi nga xam ne andil nañu ko ci barab bi ak jeexit yi fi nekk waaye ci jàmbaar ju mag ji nga xam ne moom la fi sëriñ bi daaloon muy sëriñ ndaam Abdourahman loo ci xam-xam bi sell gi ak injazat muy réalisation yu am solo yi nga xamante ni moom def na ko fi wax nañ ko léegi ci biir waxtaan wi daarul alimul xabir mooy université wu yoonu murit mooy daara ju mag ji nga xamante ni ci la sëriñ bi formé mboolem ñi nga xam ne ñoo ko toppoon ci ay njabootam ci ay magi taalibeem kon nag euh, daara jooju war na am nag beneen taxawaay boo xamante ni warees na ko cee gën mën a taxaw loolu moo waral MK tey déplacé woon ci nemmeeku ñëwoon nemmeeku si fii daarul alimul xabir ñu ngi sant bu baax a baax njabootu sëriñ daam Abdourahman Lo yëpp di e, di leen gërëm di sant bu baax ci teewaay bi itam Serigne Mourtada Lo mi nga xamante ni moom sëñ Mouhamadou Lamine Lo moom itam ñëw na fekk si waxtaan yi àndandoo ak mbokkam xaritam Serigne Abdoul bu Bousso moom sëñ Abdoul bu so kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci topp gi ngee ñu doon topp di leen jaajëfal di leen di daje ci beneen numéro ci beneen barab boo xam ne warees na koo nemmeeku ñu ngi sant bu baax a baax Serigne Abdoul Khadir Bousso mi ñu àndaloon ci Euh, réalisation émission bi waaye itam caméraman yi ñu àndaloon Serigne Bàcci Serigne Mourtada Ka euh, Baye Serigne Bousso mi nga xam ne moo nekkoon ci photographie jërë ngeen jëf ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aqibi wa min amali wa min maqaali fa kulli saara lillahi allah akbar mimma kuntu allubu wa min allubu kawni abda lillahi